Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. déclaration bi waa église bi def ci feeñal seen tiitaange ci réewum Sénégal dégg nañu déclaration bi waa église bi def ci feeñal seen naqar ci réewum Sénégal dégg nañu déclaration bi église bi def. ci feeñal ak ci alerter mboolem kilifa yi nga xamante ne ñi ngi ci réew mi ci am kàddu ci senegal te kàddu yooyu jàngu bi yëkkati kàddu yooyu itam lañuy xaar ci kilifa diine yi ci senegal yépp yépp bi ñu commencé wax ba léegi duñu wax ñaari baat te duñ ci boole ni ay du yam ci boppi boroom bi ñu commencé wax ba léegi duñu wax ñaari baat te duñ ci boole ni ñax bu wow dina lakkaale bu tooy li ñu ci jublu rek pour nit ñi mën koo xam mooy lii nga xamante ni makki sàll mi ngi ko fas yéene def ci réewum senegal muy fitna goo xamante ni mi ngi ko fa fas yéene taal bu ci ñépp jugul ci bi muy teel dina yegg foo xamante ni yéene wuñ ko Sénégal yéene ko sénégalais yi yéene wuñ ko population sénégalaise waaye di jaajëfal jàngu bi ci kàddu Benjamin Ndiaye di ko jaajëfal di ko encourager tey di ko wax bu mu dañ di wax bu mu dañ ci di wax parce que magum waxoon naa ko cim réew moo gën magum xamoon naa ko waxala war ndax danga am wàll ci réew mi di kilifa ñi yàlla teg ñi ñi yàlla dogal nga nekk seen kanam ñuy communité christianisme ay sénégalais lañu yàlla yëkkati seen kàddu jox la kon lii xew ci réewum Sénégal am nga ci kàddu waaye jaraw lakk jaaraama bi nga jiitalee say kàddu te kàddu yooyu nga yëkkati ci la ñuy xaar mbooleem ñi nga xamante ni ñi ngi ci réew mi ñoom itam di ay kilifa di wax ni président Macky Sall bi la sénégalais yi di fal amoon yaakaar ci yow moo taxoon ñu teg la fi ñu la teg ginnaaw bi nga tasee yaakaaru sénégalais yépp sénégalais yépp boo boole eh, seen naqar ak seen jaaxle toog ci biir réew mi boole kook nangu dogalul yàlla yemoo ci loolu nag mooy bëgg a rey sénégalais yi parce que am na loo xamante ni ku ko ñemee def ci mi ci réew mi mooy danga bëgg a taal réew mi maanaam yow tibb ngeen réew mi ba pare yemu leen ci tibb alalu réew mi waaye dangeen ngeen bëgg taal réew mi laataa ngeen fiy jóge loolu nag foog naa ni kilifa diine yi nga xamante ni nit ñi bàyyi nañu xel seen kàddu monde entier bàyyi seen xel bàyyi xel seen kàddu dinañ ci wax laata dara di xew ndax olof nee na xobiku ca ba nga lakk léegul di wax ni nañu fàttaliku ay kàddu yi mu Cissé Lo boo xamante ni moo ko waxoon wax ko waa APR ni ñoo xamante ni seen àdduna yépp sàcc la ak jigéen akuk sàngara man defuma leen nawle Moustapha Cissé Lo moo ko waxoon vidéo yaa ngi fi te bi mu koy wax waa parti bi la doon waxal waa APR kon jëf ji ngeen jëf wëlbatiku jaaraat ci jigéen pour takkal koo xamante ni deful dara bëgg-bëggam yépp yitteem yépp mooy defar senegal dafay firndeel ni kon seen yitte yépp mooy jigéen moo tax bi ngeen jaaxlee ba jaaxle ci jigéen ñooñu ngeen nekk rawatina ak xale yooyu fa ngeen jaaraat pour tànt pour defaat seeni piège li ngeen ciy jàngee ka ni nag mooy sénégalais yi xam nañ leen lu ngeen nas ba foog ni yéen a ca nekk xam nañu lu mu doon ba Sénégal des Sénégal ba léegi ba Sénégal des Sénégal ba léegi guléet ñu gis fi ay jigéen ginnaaw talaatay ndeer te boobu histoire bokkul ak bii guléet ñu gis fi ay jigéen ay màgget ay yaay génn ci mbedd bi c'est la première fois ci histoire du Sénégal c'est la première fois ci histoire du Sénégal ñu gis ay yaay ay mag ay màgget ay jigéen ñu mënul dara néew doole lool génn ci mbedd mi dama dem ba jigéen ñooñu yamale dee ak dund c'est la première fois ci histoire du Sénégal ginnaaw talaatay ndeer te la waraloon talaatay ndeer bokkul ak lii te foog naa ni li xew bindoona bërki démb ak démb jigéen ñépp génn ci biti yaay yépp génn ci biti tante yépp génn ci biti foog naa ni nag jigéen ñi duñu génn góor ñi des ginnaaw senegale ñàkkewul noonu jom ñàkkewul noonu fayda bu ñu demee ba jigéen ñi génn nga xam ni faaleetuñu dara génn ci biti duñu bàyyi góor ñi ginnaaw duñu bàyyi góor ñi ginnaaw kon li nga ci jàngee ni mooy Macky Sall lii nga fas yéene def sénégalais yi ñàkk ci seen bakkan moo leen gënal bàyyi la nga def ko duñu ko nangu sénégalais yi duñ ko nangu lii nga bëgg a def ci réew mi senegale yi ñàkk ci seen bakkan moo leen gënal bàyyi la nga yow nga def nga def lii assemblée woote nañu suba tëral nañu seen plan pour li ñu bëgg a def mais même bu ñu enlever immunité parlementaire Ousmane Sonko du tax ngeen tëj ko du duñu ko nangu sénégalais yi ñoo ko dul nangu duñu ko tëj duñu ko nangu da ngeen di rey sénégalais yépp réew mi tàkk mais du tax mu génn du tax ngeen tëj ko bu leen ko jaralee ay wo te ni waa Casamance pare jigéen ñi génn yaay yi génn nga xam ne duñu génn bàyyi góor ñi ginnaaw noonu la Sénégal gi yépp pare noonu la sénégalais yépp ñi nekk partout dans le monde pare li ngeen nar lépp xam nañ ko mooy tëj Ousmane Sonko yàq ko ba dootul bokk ci élection yi loolu rek ngeen nar képp koo xamante ni nag gëm nga ni Ousmane Sonko nit ku set wecc la képp koo xamante ni gëm nga ni Ousmane Sonko mën na développer Sénégal képp koo xamante ni gëm nga ni yàqu-yàqu yi ci réew mi Sonko mën na koo changé génnal ci lii génnal kenn du des ci kër yi génnal parce que nag mënuñu nangu ñun senegal ay politiciens yoo xamante ni buñ leen falee ñu sàcc xaalisu alalu réew mi caxat-caxatee alalu réew mi après menacer nit ñi terroriser nit ñi ku wax ñu jël tëj ci kaso bi kaay ànd ak man mënuma ànd ak yow nga tëj ci kaso bi gis naa lu ma metti tey ma wax ko doo ko fi waxee dama koy wax nga tëj ci kaso bi d'accordu ma ak yow ci li ngay def nga tëj ci kaso bi am naa beneen xalaat bu bokkul ak lii nga bëgg a def wala am naa beneen bëgg-bëgg bu bokkul ak lii nga bëgg a def nga tëj ci kaso bi mais ñun ñu dara dundee noonu ba kañ duñu mus a libre ñu nar a dundee noonu ba kañ ba kañ maa ngi seetaan barki démb benn audio am na lu nga am na lu baree bari lu ngeen war a lijjanti ci réew mi xolo ku ñàkk fayda kooku di Mansour Faye journaliste bi di ko yéen a ngi fàttaliku bi que journaliste bi di di di di ko posé question mu naan ko boo ma ko waxatee ma porte la plainte xoolal loolu boo ma ko waxatee ma porte la plainte mu mel ni boo ma ko waxatee ma dem wax ko sama yaay. yow sàcc xaalisu réew mi sàcc alalu réew mi ñu ñëw dina laaj nga naan non boo mu ko waxatee ma porte la peine ça ko dire que mooy boo ma ko waxatee ma ma war a mboq sama yaay xole yu ñàkk fayda yu doyee di yooyu yi nga war a lijjanti bari na trop ci réew mi lu dul sosol nit ki lu dul sosol doomi jàmbur pour lan gis nga ni kat li ngeen yàq ci réew mi kii doo nga ko mën a defar li ngeen yàq ci réew mi xam ngeen ni kii dong moo mën a taxaw fu ngeen def xaalisu réew mi mu delloosi ko ginnaaw xam ngeen loolu xam ngeen ni li ngeen luubal ci réew mi bari na te kii bu fi yegsee dina lijjanti àll réew mi fu ngeen ko dugal ngeen ni waaw nañ ko sacrifier bopp réew mi du fi yegsi nañ ko sosal tuumaal ko dugal ko prison yàq ay kayitam ba dootul bokk ci élection yi ndax buñ fi jógee mën a raw mais sénégalais yi xam nañu loolu du dem prison li ñuy wax nii nañ ko partagé ba sénégalais yëpp dégg ko partout dans le monde nañ ko partagé ba ñëpp dégg ko seen yéene mooy dugal Ousmane Sonko prison fexe ba gàllankoor ko dootul bokk ci élection yi comme ni ñu ko defee xalifa Sall comme ni ñu ko defee Karim Wade ndax bu ñu fi jógee mën a raw li ñu lekk ci alalu réew mi mën a mën a mën a mën a raw mais sénégalais yi duñ ko bàyyi noonu. du ñu nangu Ousmane Sonko dugg prison bu loolu naree am jàpp leen ni di ngeen rey ci sénégalais yi ba doyal xam nga ngeen di wax ni sénégalais ñemewul de fii ngeen ci xamee dara ndax sénégalais ñeme na de wala ñemewul de nit ñi faale wuñu prison. nit ñi faale wuñu prison nga foog ni da ngeen di jël nit ñi xoxotal leen terroriser leen une deux trois sa bët bi suuf a ngi ci sax nga jàpp jël yóbbu kaso jël nga sama xaalis nga jël yóbbu kaso ni nga yore yor yorinu réew mi baaxul nga jël yóbbu kaso mais yow yow yaay kan réew mi sa ndonal papa la wala sa ndonal yaay mais réew mi dundoon na loo fi fekk dañu amoon ci yow yaakaar dañu amoon ci yow yaakaar am yaakaar ci yow ka ne li metti senegale yi ak li sénégalais yi bëgg ci réew mi boo fi yegsee defal leen ko mais tas nga yaakaar yépp nit ñi xiif nañu nit ñi sonn nañu liggéey amul nit ñaa ngi feebar mënuñu faju ndax kenn yoru dara yéen ngeen toog ci bopp réew mi caxat-caxatee alal réew mi yépp ba pare ni kenn du wax caxat-caxatee alal réew mi yépp ku bëgg a wax ngeen sacrifier ko sénégalais yi duñu noppi ci loolu duñu dund ci loolu ñiy wax sénégalais yi nañu xam ni ñiy wax lu ñu lekk ak lu ñu naan taxul ñuy wax ndax ñàkkuñu ko avenir réew mi moo tax ñuy wax loolu na ko sénégalais xam jàpp leen ni nit ñiy wax ak yéen lu ñu lekk ak lu ñu naan ak lu ñu sol taxul ñuy wax parce que yàllaa ngi leen ciy dimbali buñ dee wax pour avenir réew mi moo tax parce que senegal fi mu jëm buñ ci waxul du baax buñ ci jugul ci bi muy teel du baax te li ma wax sànq nag li ñu gis bërki démb gis ko démb bi ñoo na gis ko Casamance jigéen ñépp génn yaay yépp génn foog naa ni sénégalais yi ñàkk ñu jom ñàkk jom ju toll ni réew mi ci situation yi mu nekk ñépp teg ci seen bët ñu dema dema dem ba jigéen ñi di génn bàyyi góor ñi ci biir kër yi sénégalais yi foog naa ni ñàkkuñu boobu jëm te it ñàkkuñu boobu yërmande ñàkkewuñu it noonu boobu googu fulla kon suñu yaay yi nga xamante ni ñoo waroon a toog ci kër yi ñu génn dem wuti indil leen bu ñu demee ñoom ba sës ba génn ci mbedd mi ñun nu ñu war a def ñoo leen fa war a jiitu ñoo leen fa war a jiitu bu leen jiituwul ñu ànd ak ñoom ci xeex boobu di ci wax nag kilifa diine yi balaa ñu yegg foofu balaa dara di xew nañu weñ loxol Macky mu génn ci lii bala ñu yegg foofu nañu weñ loxol Macky Sall ñu génn ci lii bu ñu tegoon réew mi ci yoon bu ñu jaayantewul woon doole kon du ñu yegg si fii ku taxaw di wax rek ku taxaw ci réseaux sociaux yi di wax c'est parce que doxinu doxinu doxalin wu ñaaw wu la naqari moo la tax di wax ku taxaw ci réseaux sociaux yi rek di wax ku fi taxaw di wax doxalin bu ñaaw ñaawu bu la naqadi moo la tax di wax mais bu lépp tegu woon ci yoon kenn du am joti wax non non bu ngeen tegoon lépp ci yoon kenn du am joti wax te di leen wax ni lii biñ ko toggee yàgg na trop dégg naa ci suba benn journaliste naan kan mooy kan mooy avocat wu Adji Sarr mais avocat wu Adji Sarr dafa jara a laajte kan mooy nekk avocat wu Adji Sarr ku dul El Hadj mais xool leen kan moo war a nekk avocat wu Adji Sarr ku dul El Hadj Diouf parce que moom la ñu nasa dool lépp bi ñu ko nasee ba foog ni moo ci ñoom ñoo ci nekk moom la ñu jiital ni ko génnal ci presse bi wax génnal ci presse bi yàq deru Ousmane Sonko. avant ñu yegg si ci lii kon keneen kan mooy nekk avocat wu Adji Sarr pour El Hadj Diouf jarul laaj te yaa xam mbay mi ñu wax ni moom moo bind plainte bi xaw ma yaa ko bind xaw ma binduloo ko mais ñi ngi la ciy dégg yaa xam bi nga demee bay bind lii xaw ma yow la xaw ma du yow mais su fekkee yow la bi nga demee bay bind lii waroon nga xalaat ni sénégalais yi jiwuñu la lu war a mën a tax ngay dugal sa loxo ci loo xamante ni day taal réew mi ëllëg xaw ma yow la xaw ma du yow mais su fekkee ni yow la parce que nag euh, bu fekkee ni yow la jàppal ni sénégalais yi jiwuñu la lu war a mën a tax nga dugal si loxo dugal sa loxo ci loo xamante ni day taal réew mi xam nga dañ daan gis dañ daan dégg ay manifestation sénégalais yi manifesté guñu ci problème bii ngeen di gisee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg manifesté ci problème bii nii ngeen di gisee vrai ay ay ay vrai manifestant ci problème bii ngeen leen di gisee kon kilifa diine yi am kàddu ci réew mi ni ko waa jàngu bi defee ni ko église bi defee ñoo ngi ñaan ñépp àddu ci lii ndax am nañ ci part de responsabilité nañu àddu ci lii wax ak Macky Sall ñaar moo mën a am mu génn ci lii ñu wax ak sénégalais yi ñu dal mu toog yeggale màndaawam bu jeexee ñu teg fi ku ñu neex mu dem yoonam wala mu forcer lii sénégalais yi génn mu rey ci ba doyal te su boobaa du yeggale màndaawam dina dem te màndaawam bu du jeex na def siwaawam xool bu ko gënal ñaar moo mën a am ci réew mi na ko sénégalais yépp dégg nañ ko partagé ñépp dégg ko partagé leen vidéo bi ñépp dégg ko ñaar moo mën a am ci réew mi Macky Sall da ngay dellu ginnaaw ci lii bàyyi Ousmane Sonko may ko jàmmam continuer sa mandat bu buñ demee 2024 sénégalais yi xool ku leen doy ñu teg ko fi te ñu teg justice bi ci yoon justice bi libre wala mënta nekk nga forcer lii def Ousmane Sonko ci kaso bi rey ci sénégalais yi ba doyal te su boobaa doo yeggale sa deuxième mandat li ko gars yi di waxee ni yaay soisir après nag yaay soisir ci ñaar yi booy def mais jàppal ni bis boo forcé ba ni di nga tëj Ousmane Sonko ci prison bi jàppal ni di nga rey ci sénégalais yi ba doyal loolu na leer ci sa bopp bis boo forcé ni Ousmane Sonko dina dem ci prison bi jàppal ni su boobaa di rey ci sénégalais yi ba doyal parce que yi sénégalais yi daan muñ di ko toogaale ci seen kër bii bokk ci bii bokk ci non bii bokk ci yi sénégalais yi daan muñ di ko toogaale seen biir kër bi bokk ci te ñoo ngi ci woo ñépp ñoo ngi ci woo képp ku am kàddu ñoo ngi lay woo ci nga wax ci lii balaa wax di wees képp ku am kàddu ci réew mi ngay kilifa diine ak loo mënti doon même boo nekkul kilifa diine am kàddu ci réew mi ñoo ngi lay woo nga wax ci lii balaa wax di wees te bu ngeen gisee lii xew ci ñaari fan yi ca Senghor ba Abdou Diouf Abdoulaye Wade mi nga fi remplacé ami fi benn histoire boo xamante ni jaar na fi sénégalais yi doxalee nii amul amul benn histoire politique bu fi mus a jaar bu tax sénégalais yi doxalee nii amul mus fi am te problème bu ne am na fi lu nekk jaar na fi lu ne xew na fi li yóbbee lii sénégalais yi mooy dañu sës Macky Sall sénégalais yi dañu sës senegale yi dañu sës boo amoon conseil dëgg-dëgg lii doo ci dugg boo amoon conseil dëgg-dëgg même bu dee sa say responsable ñoo nas li bëgg ci dugg nga yëg ko di nga ko freiné ci bi muy teel xawma ku dug ku la dugal ci lii ak ñu ñii organiser lii jàppal ñi ñooy say première noon yow parce que bu ñu bëggoon nga gouverner ci jàmm bu ñu bëggoon réew mi dal bu ñu bëggoon nga nekk ci jàmm bu ñu bëggoon nga am mujj gu rafet ci réew mi lii duñ la ci dugal bu situation bi passé na nga ci xamee que ni ñi organiser lii ba dugal la ci buñ la yéene woon mujj gu rafet ci réew mi lii duñ la ci dugal te li ngeen xamul mooy ba ci yéen gouvernement bi xamu leen ñu ngi leen infiltrer parce que yi ngeen di def ñi ngeen ko seqal ñooy génn di ko waxaat nit ñi yi ngeen di def ñi ngeen ko seqal ñooy génn di ko waxaat nit ñi même pour wan leen kon ñi ngeen àndal ñu nekk ci seen biir xam nañu seen incompétent dañ ci mënul dara rek parce que ay sénégalais lañu dañu war a liggéey dañu war a dund faw ñu ànd ak yéen pour liggéey faw ñu ànd ak yéen pour dund mais ñi même ñi ànd ak yéen di nga ci toog ak res ay responsable yoo xamante ni bu ñu waxee ci yéen dañuy xam ni malgré que ñoo ngi ak yéen mais xam nañu seen incompétent xamu leen dara ñu dul ne fi caxat-caxate alalu réew mi sàcc gu metti ku wax ngeen jël def ci kaso bi mais sénégalais yi dañuy wax fi mu toll nii parce que ñëpp a sës dañuy wax commentaire mais sëf saaga parce que kii dafa toll ci ñu wax ak sénégalais yi ci anam boo xamante ni dinañu mën a comprendre kii lu mu nar ak fu mu jëmee réew mi ban chef d'état la ñu mës a gis ci senegal ca Léopold ca Senghor ba léegi ban chef d'état la ñu mës a gis pour jënd kër états ban ban chef d'état fu xaalis boobu jógee ban ban chef d'état la ñu a gis Abdou Diouf ñaata at la fi def ñaata mandat la def ñaata mandat la Abdou Diouf def ñaata at la fi Senghor nekk ñaata at la fi Ablaye Wade nekk da ngeen ko mës a gis mu jënd kër États-Unis da ngeen mës a gis ay doomam di dawal ay Ferrari mais xaalis boobu fan la jóge fudul ci réew mi mais yéen yéen a ngi caxat-caxatee alalu réew mi waxuñu ci loolu ngeen bëgg a toog ci fitu nit ñi toog ci boppu nit ñi ku wax ngeen jël yóbbu kaso baa ngeen dóor nit ñi ragaluñu kaso non non ragaluñu kaso ragaluñ ko de nit ñi ragaluñ ko te nag ñaar moo fi nekk continuer di dund ci lii say njaboot di dund ci lii ak nga sacrifier sa bopp sauver sa bopp mu jeex tàkk ak sauver say njaboot loolu rek a fi nekk soit ñu noppi lii di continuer ba faw soit ñu taxaw ci mu dakk ñu sauver suñu bopp sauver suñu njaboot te sénégalais yi actuellement pare nañu ci sauver seen bopp sauver seen njaboot lu mu laaj sénégalais yi def ko lu mu laaj en ce moment yi def ko lu laaj actuellement sénégalais yi def ko sëgam jigéen ñi lañu ñu gis Bignona Casamance jigéen ñi génn mais sénégalais ñàkkul jom ñàkk jom du toll ni jigéen génn góor des ci biir googu ñàkk faayda yegg seegul ci sénégalais sénégalais yi yegsee guñu ci ñàkk fayda ñàkk fayda goo xamante ni jigéen ñi dañuy génn maire yi dañuy génn góor ñi des ci biti non non ni suñu yaay yi génnee noonu la ñëpp di génnee ànd ak ñoom ci réew mi dafa jot mu changé réew mi actuellement dafa jot ci mu changé réew mi actuellement dafa jot ci yorin wu bon wi dakk réew mi actuellement dafa jot ci jaayante doole bi dakk réew mi actuellement dafa jot ci justice bi libre réew mi actuellement dafa jot ci ku ma am ndey ak ku ma amul ndey dakk ci réew mi dafa jot dafa jot en mais ñu sénégalais dañuy dund ci lii ba kañ dafa jot dafa jot te na ci sénégalais yépp jug partelaat partagé leen vidéo bi sénégalais yépp dégg ko dafa jot ñépp jug ci réew mi changé ni waa Casamance def na ko sénégalais yépp def fi ñu nekk moo xam Dakar moo xam Fuuta moo xam Tamba moo xam Saalum moo xam Kajoor na ko ñépp defandoo ku ci nekk fa nga nekk parce que dafa jot réew mi réew mi soppi ko sénégalais yi libre mais yow ñu ngi la doon xaar feneen xoolal taux de chômage bi réew mi metti nga tëj nit ñi kenn mënatu la dem kenn mënta def dara nit ñi nekk ci seeni kër xiif ah ñii feebar mënuñu faju xoolal réseaux sociaux yi doo xëy deux jours te gisuloo ku ñuy sàkkul ndimbal pour mu faju amul doo toog deux jours te gisuloo ku ñu exposé ci biir réseaux sociaux yi pour lan dafa feebar bëgg a faju mënul faj boppam mais xool leen ndax loolu amoon na fi kañ la xew même bu sénégalais daan feebar loolu xew fi woon nit ñi dañuy feebar mënuñu faju liggéey amul nga tëj lépp tëj lépp tëj lépp fu nit nekkoon amoon fa activité daan fa fortaatoo lu mu yóbbu ci waa këram daan fa fortaatoo lu mu dundee nga tëj ko tëj nga làmb ji tëj lépp tëj nit ñépp kenn mënatul a def dara yemuloo ci loolu bëgg a wàcce say alkaati ci biir mbedd mi di dóor ak di yóbbu prison di wax alkaati yi prêter def leen ndànk parce que ñii ngeen tax ñii tax bu ñii taxee ngeen di tiire bal ci kaw sénégalais yi senegale yi dinañ ko jëflante ak yéen te du tee bu dem dee am ñii lañuy dem yóbbaale xaalisu réew mi ànd leen ak seen xel buñ leen joxee ordre ngeen génn ci mbedd mi def leen lu nekk mais sauf di dóor nit ñi ak di gaañ nit ñi foog naa ni un vrai vrai vrai sénégalais duñ ko jox ordre muy jël bal di ko tirer ci kaw sénégalais moroomu sénégalais un vrai sénégalais ci loo xamante ni yéen ñépp xam ngeen ni li ko sabab jaay doole la te li ngeen nekkee yéen moo xam militaire yi moo xam policier yi moo xam gendarme yi li ngeen nekkee jarul kenn di ko wax parce que sénégalais yëpp xam nañ ko ñaata chef lañ fi dégg ñuy taxaw di wax loo xamante ni boo ko déggee da ngay taf sa gémmiñ ci armée bi ci yorin wu bon ci maatay ci lu nekk am ci police bi am fépp kon dafa jàll dafa dafa dafa dafa laaj réew mi changé dafa laaj réew mi changé ba yéen police ngeen mën a nekk ci jàmm ku ci liggéey ba re ba retraité mën a dund ci xel mu dal muy gendarmerie muy armée bi da ngeen war a nekk ci leneen lu dul lii ngeen nekkee te loolu pour mu am réew mi dafay changer bàyyi leen xel loolu kon bàyyi leen xel ni sénégalais yi li leen tax di génn seen intérêt la intérêt peuple bi yëpp la intérêt population bi yëpp la Macky Sall bu forcé ci lii mu bëgg a def na sénégalais yëpp génn wan ko ni ko lii nga bëgg a def ànduñu ci nañu génn wan ko ni ko lii nga bëgg a def ànduñu ci jaayante doole ci bopp réew mi taxul ñu teg la fi kumba am ndey kumba amul ndey taxul ñu teg la fi di utiliser justus di ko di ko jaayee doole say adversaire taxul ñu teg la fi duñu toog ci suñu biir kër di la ko wax dañuy génn wan la ko nga xam ni kontaan duñu ci yow ah oui ah oui ah oui ah, ah li mësul am ci histoire Sénégal ba senegal des senegal ba léegi li mësul am ci histoire senegal te sénégalais yi ñuy seetaan xam nañu loolu mësul am keroog bi ma gisee waa Casamance jigéen ñi génn sama xel demul ci ku dul Aline Sitoé Diatta bi ma gisee jigéen ñi génn sama xel demul ci lu dul jigéenu talaatay ndeer bi ma gisee jigéen ñi génn sama xel demul ci kudul yaasin buubu pour wala ni ah sénégalais mën naa muñ mën naa maslaa <laughs> waaye nag bu sësee bu farata jotee mu jug wane boppam loolu la jigéenu Casamance yi def te duñ ci wet Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.